jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewlu ci seen bii di naraktu yi dal leen ak euh, jàmm lu nu mel ñoo ko gisandoo kenn gaañuwul kenn demuwul kenn xosiwul kenn kenn gëjjul kenn lu nu nag ñu daal di koy nemmiku niki tey fii ci réew bu Sénégal gannaaw ba nga xamee ne rek dal di nañuy autorisé boobu le mars jamono ji nag kenn gaañul kenn kenn xosiwul kenn lu ni mel nag gëjoon na am fii ci réew bu Sénégal niki tey jëlee nag ñu daal di koy amalaat lépp ci jàmm ak salaam kenn gaañul kenn kenn xosiwul kenn mu mel ne rek mars bi nga xam ne daal nañu ko fi autorisé fii si réew bu senegal lépp ci jàmm lay amee askan bi yëpp daal di génn. wuy si bu baax a baax woote bi nga xam ne rek dal di nañu koy woote ngir nag dal di fësal la nga xam ne rek moo daal di nekk ca seeni xol ngir ne ki nga xam ne rek moo di njiitam réew mi la daal di doyal uh, ci moom sëkk moom njiitam réew mi la na di dem moom njiitam réew mi la doy na sëkk loolee waral askan bi gëndandoo bu baax a baax gannaaw ba nga xam ne rek daal di nañuy autorisé bile mars jamono bi nag kenn gaañul kenn kenn kenn kenn gëjjul kenn ba noonee muy jeexee